maa ngi tudd Seyni Tall nekk responsable APR fii ci biir Grand Yoff di liggéey ak Mora Cissé nekk yor lépp la nga xamante ne ni moom mooy communication donc tey dañu commencé suñu suñu activité ànd ak vraiment Mora Cissé parce que depuis ñu commencé boobu ñu ngi doon liggéey ak CEB yi nga xam ne ñu ngi lay mettre en place pour liggéey dans le cadre de Benno Bokk Yaakaar tey nag on devait recevoir le ministre euh, Youssou Ndour les ministres Youssou Ndour ak Mame Niang ci cadre boobu xale yi yeeg seen pick up pick up di def ay tournée noonu ñu dajeek avec la coalition Manko taxaw Sénégal xale yi vraiment ñooñu dogaale leen dogaale leen bënn oto pono oto yi ba pare menacé leen xotti lépp la fa nekkoon banderole menacé leen ak ay paaka ay poignard loo xamante ni man man gëj naa ko gis depuis yàgg na trop ci politique vraiment ñun yaakaaroon nañ ne politique nit ñi dépassé nañ yenn étape bi mais tey yaakaar naa ni ñun dès le départ nañ doon wax du ñu wut ay éléments de sécurité mais légui il faut une sécurité parce que mënuñoo and ak suñu nit di leen mettre quand même en danger donc vraiment on est désolé mais vraiment buñ ñu ba nga xamné jarbaatu Khalifa Sall moy dem di sàcc portable ka nga xamné ne ay xalé yo xamni and ak ñu di liggéey c'est très grave. lan nga yaakaar mo waral loolu. li waral loolu yaakaar naa dañoo tiit parce que ku tiitul doo jëfru ñom ñu bo gisé jëfru bi yépp ragal na né tiit ko waral parce que tay Benno Bokk Yaakaar dafa dugg partout à Grand Yoff di def liggéey bu mucc ayib sans tambour ni trompette. kër par kër di waxtaan askan wi ñu leen di commencé di convaincre fi mu toll nii dañoo bëgg a xoqatal tiital ñu ba dootuñu ko ne suñu visite de proximité yi nga xam ne ñu ngi koy def à l'endroit en tout cas des populations locales. waaye fas ngeen yéen a continuer seen visite de proximité. incha allahu rabbi. dinañ continuer suñuy visite de proximité kenn ñoo xoxatal kenn mënuñoo tiital kenn ñoo wàññi ci li nga xamante ne tey nii tey fas yéene nañ ko defal le président de la république fas yéene nañ ko defal askan wi parce que bu ñu le président de la république parce que dafa nekk ci yoon yoon ba nga xamante ne tey mooy Sénégal day sukkandiku Sénégal jëm kanam kon ñun dañ koy jàppale ba mu am majorité ci assemblée liggéey bi kon ne du ñu arrêté benn yoon. Mor Cissé responsable politique APR. à Grand Yoff. waaw bi démarré na naka ngeen ko dundee. non ni ñu ko dundee moom euh, il faut que ma wax leen loo xam ne dafay nekk lu leer parce que campagne bi mu ngi door a tàmbali na mais waa PS ñu ngi ciy boole loo xam ne bokku ci dafa dañu yaakaar dafa mel ni xamuñu ñu ñun amuñu lu ñuy ragal amul lu ñuy tiit dañoo dem jëli ji ay nit yoo xam ne dëkkuñu Grand Yoff c'est un L200 sen sen sen si ay jassi dougal ay dougal si ay assez tout def si ay xottu bëjël amul dara fu ñu suñu mbolo ñu nous ñu cette affaire yu doy donc limay wax la ngi interpeller état pour ñu nous ñu taxaw nous, parce que politique la campagne la nañu campagne ku nekk campagne sa campagne si jàmm ak salaam ku gañe ñu xam ne yaa gañe mais liñ fi doon def doon ñu fi def rek mënuñu tiital kenn moomuñu Grand Yoff lu ñu mën rek mën nañ lu ko loolu moom il faut que ça soit très clair ñu ngi toog di xool naka la ñuy naka la ñuy organiser wu suñu biir pour gérer loolu donc il faut que état bi xam loolu.